rubon muhlikaat ak xaaj bi jàngale yi alake rubon munjiyaat ak xaaj bi jàngale yey musale dana wax lu tax mu xaajeeku ni wa saddartu commencé na al jumlata loolu lépp téere bi lépp bi kitaab li ilmi ci téere xam-xam laaj ci mbiru xam-xam la commencé laa noo ndax moom xaayatal muhim mooy doytu waaye li gën a am solo li ëpp mooy mbiru xam-xam moo tax moom la commencé téere laak shifa ngir ma wuññu awalan ci njëlbeen ngir ma wuññu awalan ci njëlbeen dégg anil ilmi ci xam-xam alladi bi nga xam ne taabada jaamloona allahu yàlla lisaani rasul yi ci làmm yonentum sallallahu alayhi wa sallam al ayaana jëmm yi bi talabi ci sàkku xam-xam lay njëkkee pour wane ban façon xam la yonent di wax ne war nañ koo jaamu yàlla maanaam ko jaamu yàlla farata la is ngi qaala wax na rasulullah yonent تنبو علم ساق قم قم فريدة سرطرة على كل مسلمين سبب جريت مقام غورك ديجن بان فاسو خم خم دو ولا بغا جانغال موتا مو نجي كيتي ولا خم كو وميز ناراني في تي بونت بوبو على علم النافع خم خم بوي جارين من الدار تي خم خم بوي لور دا جانغال خم خم بي جارين اك خم خم بوي لور بغا مانا خامي بان فاسو خم خم موي جارين اك بان فاسو خم خم موي لور isngir qaala wax na sall yàlla doolu ko allah wala alayhi si moom wasalama doolu ko mos a yonent bi nee na naawusu ñu ngi muslu billaahi ci yàlla min almen ci xam-xam boo xam ne ni laa yan fanu du jëriñ loolu la yonent wax kon am na xam-xam bu dul jëriñ dana la ko dana la ko ràññee ba nga xam ban façon xam-xam bi wow xaqiqu dana dëggal may la ahlil asri jéng ak ñoon jamono an shakirati sawaabi wala si yoonu njub wan qidaam ak seen ak xoru bi laami saraabi ci njunux gi aji melqati waqtinaahum ak seen ak doylu min ulumi ci xam-xam yi bil qishri ci qonc ani lubaabi waris la gën a sell ñoom qonc di rek maanaam xollit doy na leen waaye la ca biir xollit ba nga xam ne mooy meññal ma ñun soxluñ ko sax loolu danaa ko lay ba mu leer nañ ba nga mën a xam ne ndeke ñetti jamono ji daal ñu si ëpp xawuñ yoonu njub loolu imaam Ghazali dana ko lay <coughs> ci seen jamono ñoom ca maas ak rawatina ci maas gi ñu nekk wa yastamilu dana làmboo rubun ibadaat kaar bi nga xam ne nii maanaam xaaj bi nga xam ne mooy jàngale li aju ci wàllu jaamu yàlla mm-hmm. ala asrati kutub am na fukki téere yi ci nekk bi ci njëkk kitaabu ilmi téere bi jàngale ci wàllu xam-xam wa kitaabul qawaid ak aqida ak téere bi jàngale ci pas-pas yi aqaid pas-pas yi pas-pas yi maanaam qaidaay pas-pas yi maanaam li nga war a gëm sa xol wa kitaab asraari tahaara ak téere bi jàngale secret laab mm-hmm. wa kitaab asraari salaata salaati ak téere bi jàngale secret julli mm-hmm. wa kitaab asraari zakat ak téere bi jàngale secret azaka wa kitaab asraari siyaam ak téere bi jàngale secret hoor wa kitaab asraari hajj ak téere bi jàngale secret aj wa kitaab aadaabi tilaawatil quraan ak téere bi jàngale teggini jàngal quraan wa kitaab azkaar ak téere bi jàngale e, wàllu zikar wa daawaat ak ay ñaan wa kitaabi tartibil awraad ak téere bi jàngale toftale ay wérde fil awqaati ci waxtu yi waxtu yi lii nga ci wér daagul ak lële yooyu yëpp daf koy andi rek ànd ak ay lay nag ci alquran ak sunna wa maarubun aadaati waaye kaar bi jàngale ci wàllu aada fa istamil dana làmb waala asarti kutubin ci fukki téere kitaabu aadaabil akri téere bi jàng téere yi jàngale teggini lekk wa kitaabu aadaabi nikaay ak téere bi jàngale teggini sëy wa kitaabu ahkaamil kasbi ak téere bi jàngale attey fàggu muy liggéey wa kitaabil xalaali wal xaraam téere bi jàngale lu dagana lu xaraam wa kitaabu aadaabi suxba ak téere yi jàngale teggini àndoo wal muachara ak jaxasoo ma asnaafil xalq ànd ak teg ànd ak xeeti mbindeef yi yan tegin nga war am yow mi jax jaxasoog bindef wa kitab al usla téere bi jàngale ci walu beru wa kitab adab al safar ak téere bi jàngale ci walu tukki wa kitab al sama ak téere bi jàngale ci walu déglu sama yeeg dégg nga misik yeeg wala bogi deme non noonu wala wëjd ak tiofel wa kitab al amr bil maarufi ak téere bi jàngale digle lu baax wa nahyi anil munkar ak tere lu bon wa kitaabi adaabil maisha ak téere bi jàngale ci teggini dund wa axlaaq nubuwa ak jikko yonente bi sallallahu alayhi wasallam yooyu yëpp dana ko jàngale ci rubul azat wa ma rubul muhlikaat kaar bi nga xam ne nag maanaam xaaj bi nga xam ne yi alage la la la ci andi fa yastamil dana làmb moom it ala asrati kutubin ci fukki téere kitaabu shari ajaaibul qalbi téere bi leeral kéemtaani xol wa kitaabu riyaadati nafsi ak téere bi lay jàngale aju ci wàllu tàggat bakkan wa kitaabu afaati shahwatayni ak téere bi lay jàngale li jëm ci gàkk-gàkk ñaari bànneexi shahwatul batni gàkk-gàkku biir dégg nga wa sa wa shahwatul farj ak gàkk-gàkku ak bànneexu biir kon wa shahwatul farj ak bànneexu pay bànneexu biir ak bànneexu sowukaay musiba yi indi nit ñi nit nit dana ko jàngale wa kitaab afaati lisaani ak téere bi jàngale gàkk-gàkku làmmañ musibaay làmmañ wa kitaab afaati xadab ak téere bi jàngale gàkk-gàkkay mer musiba yi juddoo ci mer wala xeqat ak añaan وليقل اك سخر والحسد اك انيان وكتاب زم الدنيا اك تيري بلاي جانجل ولي جمشو نغاني ادنا وكتاب زم المال اك تيري بي جانجل جمشو نغاني علل والبخل اك ناي وكتاب زم الجاهي اك تيري بي جانجل ناني درجة ورياء انجستل وكتاب زم الكبري اك تيري بي جانجل ناني ري ورعجبو اك هاو وكتاب زم الغرور اك تيري بي جانجل ناني اك نخو نخو خرو yéem sa bopp yaakaar ne daal li nga nekk noonu la fekk du noonu mhm. yooyu lay jàngale foofu waa maa rubul mun jiyaati kaar bi nga xam ni mooy jàngale yey musale fay tamit dana làmb moom it daal di kutub ci fukki téere kitaabu tawba téere bi jàngale aju ci wàllu tuub mhm. wa kitaabu sabr ak téere bi jàngale ci wàllu muñ wa shukur ak ngërmaande mhm. wa kitaabul xawfi téere bi jàngale ci ragal wa rajaa ak yaakaar wa kitaabul faqri téere bi jàngale ñàkk wa zuud ak وكتاب التوحيد تيري بي جانغلي سي ويتال يالا وتوكل اك وكيلو وكتاب المحبه تيري بي جانغلي والو مبغيل والشوق اك نمل والانس اك ويتال وريدا انغل مال <coughs> دينغا وكتاب النيه اك جانغلي اي سي والو يينه وصدق اك دغ والاخلاص اك وكتاب المراقبه اك جانغلي سي والو فوغلو والمحاسبه اك رجل وكتاب التفكر اك جانغلي اي سي والو خلات وكتاب ذكر الموت اك جانغلي فاتلكو دي يي جانغلي فوفو kon téere bi ñeenti xaaj la xaaj boo xam ne dafay jàngal aju ci wàllu jaamu yàlla ak xaaj boo xam ne dafay jàngal lu aju ci wàllu aada ak xaaj bi nga xam ne dafay jàngal yi alage ak xaaj bi lay jàngal yi musale mu ne fa amaa rubul ibadat xaaj bi jàngale ci wàllu jaamu yàlla faskuru danaa tudd fii ci moom xafaaya aadaabiha la nëbb ci ay tegginam wa daqaayiq sunaniha ak sew-sewi sunna yi wa asraari maaniha ak mbooti maanaam yi waaju aju ci wàllu jaamu yàlla dana tudd ni jaamu yàlla yu nëbb yi ak sunne yi sew-sew yi ci nekk ak maana mbiri jaamu yàlla yooy la ci nekk ci ay mboot maa la nga xam ne yettaru dana loru al aalimu aji xam aj borom xam-xam al aamilu bi aji jëfee ilay jëm si moom loo xam ni borom xam-xam buy jëfee mënu ko ñàkk xam ba li fi nekk laa yakun du nekk min ulamaay alaxira ci borom xam-xami axira yi borom xam-xami alaxira yi man ka nga xam ne laa yattalimu du yër ale ci moom loolu daf di maanaam la muy jàngale daf di loo xam ni ku bëgg alaxira da nga ko jàng wa aksaru zalika te lu ëpp ci li muy jàngale si téere bi ci wàllu jaamu yàlla mimma bokk na si li nga xam ne uhmila neenal nañ ko fi fànnil fiqiyaati ci fànnu téere fiq yi ñaareel boo demee si téere fiq yi doo ko andi maanaam xam-xami ruuxu la ولما روبون عادات ويكار بأجو شوالو آدا فازكر دنا تدو في سمو أسرار المعاملات مبوتي جفلانتي الجاري أجد بين الخلق ديغنت من لفي وأغوارها أقود قود ودقائق سننيا أقل أقل أكسيو سيو سنة وخفايا الورع أقل ينبوتو شوالو سمو مي فاغو ولسمو يالي في مجاري هاتي أيونام ويمو مما مي بوكس نيا قمي لا يستغني دو دويلو عناتي مو مسدين برم دينه wala aada danañ tudd mbooti jëflante yi daw ci diggante mbindeef yi ak xóot-xóot yi ci nekk danse yeeg yëpp sunna yi nga xam ni war nañ ko doxal suñu diggante ak sew-sew yi ci nekk lan mooy sàmm ak yu demee noonu nga xam ni ko am diine foo nga xam loolu ku bëgg si diine wér foo nga xam loolu <laughs> ndax boo tooñee mbindeef yi doo am doo jàmm sa diggante sa borom maanaam daal moom lam lay jàngal ban ngay wax ne mënuñ ko def sa tarjuma ndax loo ko firi firi boo ko jàngee mu gën laa neex boo yeggee ci bunti jàng ko mu gën laa yëpp waa maa ruboon muhlikaati xaaj yi nga xam ne dafay àllage nag faas ku tudd fii ci moom ku la xuluqin bépp jikko mazmum buñ ŋàññi war a da rot na alquran alquran bi imaatati ci dindi ko wa taskiyati nafsi ak sellal bakkan anu ci moom wa tathir qalbi ak laabal xol minu ci moom bépp jikko boo xam ne alquran da koo dàq bëgg bakkan yi mucc ci bëgg xol yi mucc dana ko andi nga ko da ngeen indi jikko boobu rek mu ne déedéet wa azkur danaa tudd min kulli waahidin ci benn bu nekk min tilka axlaaqi ci yooyu la jikko xadduhu doyam firim jikko boobu mooy lan lan mooy jikko bi bu dee rëy mu wax la lan mooy rëy xaaw lan mooy xaaw ngistal mu wax lan mooy ngistal wax la dëgg-dëgg jikko boobu nga ko foofu nga yem ne déedéet su ma azkuru danaa lay waral jikko boobu allazi bi nga xam ne yeta wala dana juddoo minu ci moom jikko boobu ci lan lay juddoo sax danaa la ko wax mm-hmm. su mal aafaatu topp gàkk-gàkk alati yi nga xam ne ni tatarattabu dana toftaloo aleyha ci jikko yooyu ku yore jikko yooyu yan musiba moo ciy topp yan gàkk-gàkk moo ci juddoo yan problème moo ci juddoo su mal alaamaat topp mandarga alati yi nga xam ne ni tataarafu dana xam lu bihaa ci moom mandarga yi tax ñu xam ne jikko bi mu ngi ci waaji danaa ko wane maanaam jikko boobu mandarga yi mu yone nu muy manifesté woo danaa ko wax danaa ko jàngale mu ne su ma tare turuqul muaalajati topp ma jàngal la yoon yi faj jikko yooyu alati yi nga xam ne bihaa ci ñoom yu tax xalasu la ñuy muccee minaas yi jikko yooyu fi ngay jaar ba set jikko yooyu danaa la ko wax kon mboolem jikko bu alxuraan ngaañ dana ko indi ci téere bi wax la jikko boobu dëgg-dëgg jikko boobu mooy lan ba nga xam lan mooy jikko bi wax la sabab bi koy waral wax la lay juddoo ci jikko boobu boo ko yoree ci ay musiba wax la màndarga yi tax ñu xam ne nga xam ne jikko bi mu ngi ci yow wax la nooy jaar ba faj jikko boobu mu génn ci yow li amul njëriñ kullu zaalik loolu lépp nag maqrunan dama koy ànd rek bi shawahidil ayaati ci aaya alquran yi may seedeel wala axbaar ak ahadis wala asaar ak waxi mag ñi te indi alquran ak ahadis ak waxi mag andi ci rubul muhlikaat waa maa rubul munjiyaat kaar bi nga xam ni xaaj bi nga xam ne dafay jàngale yey musale phase kuru danaa tudd fii ci moom kulla xuluqin bépp jikko mahmudun buñ gërëm wa xaslatin ak jikko marxubun buñ xemam fiha ci moom min xisaalin muqarrabina ci jikko yi ñi nga xam ne ñu jege yàlla lañu wa siddiqin ak ñu dëggu ñi alati yi nga xam ne yataqarabu dana jegeñ loo biha ci jikko yi al abdu jaam min rabbil alamin ci borom bi ndef ruboon moon jiyaati mboolem ñu baax ñi jikko yi ñu yore woon rek dana ko andi jikko yi nga xam ne day tax jege yàlla واذكر ذنات في كل خصلة تبيب جيكو حدها دوام وحقيقة واك دق دقم جيكو بباق بري دانال دانال فير المويلان جيكو بي مويلان دق دق ملو كان بي مويلان وسبب واك سبب الذي بنا خمني تتلب دننكو بيجي بيج مو لن موي ورال نغا امي جيكو بباق بوب سبب بي تنغا امي جيكو بباق بوب دانكو وخ وسمرتو اك منيتم التي بنا خمني تسفار دننكو جرنيو منها چمو jikko ju baax jooju boo ko yoree yan meññet moo ci juddu yan njariñ moo ci juddu wa alaamato ak mandargaam alati bi nga xam ne tataarafu dana xam loo bi ci moom jikko yu baax yooyu nan la ñuy def ba xam ne mu ngi ci yow wa fadilato ak bi nga xam ne nii li ajliha ngir moom yor xabu danañ xamem fiha ci jikko yooyu yan ngëneel la yor yoo xam ne nit war naa tax nit ñi bëgg ko su ko defee lii la lay andil ci rubul muñ jiyaat ماما ورد أنك لرد في هاتي جكوي من شواهد الشرعين سيدي شرعها والعقل أقل دار أنجل توالو خل أقوالو شرع يري سيدل جارني جكوي لي دقل وخم جوجو ولقد صنف طائفنا الناس نني في بعض هذه المعاني لأنك معنا كتب أي تير مننك ينك موقع من جي تعرف أي ولكن وانك يتميز دنا رانيك هذا الكتاب بلا تير عن هاتي بخمسة أمور سجون بير sama téere bi juróom a ngi ci yoo xam ne nekkul ci yooyu alaa bu njëkk xallu ma aqadu fecc la nga xam ne fas nañ ko wax yi tënkoon ci ñoom man dinaa ko leeral ba mu leer nañ wa kashfu ma ajmaluhu ak wuñ ñi lañ mbëstal lañ ko nga wax dara rek waaye nag tàqale xoo ko benn par benn ba mu leer nañ ma danaa teqal loolu yi ba mu leer nañ asaane ñaare ba tartibu ma baddalu toftale wax yi nga xam ne tofaloo ko lii lii ci tem bi la bokk nga wax leen li fii leneen li nga wax ko fa moom daf koy toppalante tem par tem wa nazmi ma farraqu ak dajale lañ teqale ijaazu ma tawaloo gàttal lañ guddal wa dabti ma qararoo ak takk lañ leeral lañ leeral danaa la jox benn takk-takk ba nga xam ne dafay neex a xam ci yow la guddal ma gàttal ko xasbu ma kararoo ñeenteel bu mooy xasbu ma kararoo xasaf lañ baamu wa isbaati ma xararoo ak saxal lañ lañ lañ lañ lañ lañ seggi waaw lañ baamu dama koy dindi la lañ xam ne defar nañ ko moom rafet na moom loolu mu andi ko lu mel noonu maanaam sama téere bi lii la wut ak yeneen téere yeneen téere yi mën naa jaxasoo mais bii dafa organisé wu daal alxaamisu juróomeel ba taxqiqu umurin mooy dëggal ay mbir yu nëbbu taasat jafe na alal afaami ci dégg yi lam yataarat gaar lu laañal ko wala wala mu yataarat gaar ko fil kutubi ci yi aslam ci jisaan dana andi ay mbir yu nëbbu yoo xam ni nit dégg ko du yomb ci moom te ñaareel daawul ñëw ci téere yi mu indi ko ci téere bi leer la la ko ba leer nañu ci yow is ngir alkullu lépp wayn tawaaradu alkullu ñëpp wayn tawaaradu di du rot nañu laa mën a xajin waahidin ci benn yoon fala mustankira kenn du weddi anita farada mu beru kullu waahidin kenn ku nekk mina saalikina ci way soobu yi bi tan bi ci yeete li am ri ñeel mbir ya xusu boo xam ne dana ko jagleen wayax a mu sàgganaalu ci moom rufa xaw ay an dooram ku ne mën nga loo xam ne ni ñeneen ko ولا يغفل ولا ساقن إن شاء الله تنبيشياتك ولكن وانا يسوع دنا جم أن إرادي شرطك في كتب تيري لين جب كتاري عمد أخوان إنكو فات أنديوكو أو لا يسوع ولا فاتوكو صح ولكن وانا يسرفه دنا كتورنا أن كشف الغطاء تيمون يموراي كانوا تيمم صارف أن أجتورنا فاتوكو صح أمنا لطخ دار أنديوكو قول ده فهم أمنا تيرم بي أم جرم يبرين أندو تيري دفك أندي فهذه خوات هذه الكتاب ما يخمن تيري بيجا قانكو maa kaw ni ànd ak nekk mu xaawee ndaa ji laq li ma jaami xaaji ulumi ulumi ñeel daje waaye mbir yi rek xam-xam xam-xam yi jëriñ nit ki mën nga wax ne bi la jël na ko kon su ko defee loolu mooy lim andi mais du tax nga def téere bi ñeenti xaaj nag mu tënkal la mboolem xam-xam xoolal imaam Ghazali dafa yéeme dafa lay tënkal mboolem xam-xam wane na man xam-xam bi ma bëgg a jàngale moo tënku moo moo bànqaasoo ñeenti xaaj loolu waral ma ko وإنما حمل إنك ينم على تأسيس هذا الكتاب بسستير بي على أربعة أربعين في ينتخاج أمران نعرم بير نعرم بير موتح مدفتير بي ينتخاج أحد ما بين بي وهم الباين سب أصلي موي لما موي لما جنة بوسي لما بوسي لي تسان موي أن هذا الترتيب إنك تفتى بي في تحقيق تدقل وتفهم أك دقل كالضرورة تفهم من المنونيك نيمو كدفه دفهم المنونيك انا يعني كنت لان العلم ان قمقم الذي بين خمن يتوجه درن جبلو بي سي موم الى الاخره جم الاخره قمقم بلا ما الاخره ينقسم درن سدكو الى علم المعامله سي قمقم جفلانتي وعلم المكاشفه قمقم وني قمقم كشف ما الى الله قمر علم المكاشفه ما الى الله ما القدر وعلمنا من ابن علم لولو دوني جان سير علم المعامله ما قمقم جفلانتي من قمقم ياري قمقم ياري waani danaa namu bi ilmi mukaasifa ci xam-xama wuññu maa la nga xam ne yut lagu danañ sàkku bii ci moom kashful maalumi wuññi lañ xam faqat dong kooku moom yàlla la lay xamal waaye nag amul luñ lay wax naan da nga koy jëfee wala nangam nangam daf lay wuññil dëgg-dëgg mbir mi nga xam ko rek loolu mooy ilmu mukaasifa waani danaa namu bi ilmi muamala ci xam-xama jëflante maa la nga xam ne yut lagu danañ sàkku minu ci moom maal kashfi ànd ak wuññi al amalu jëfee bii ci moom xam-xamu mu amala nag mooy boo xamee mbir mi bu paree nga la nga jëfee ko comme julli nga war a xam dëgg-dëgg julli soo paree nga dem julli ci loolu mooy xam-xamu mu amala xam-xamu mu kaas ba mooy yaa xam ne daf wunil wuññil dëgg-dëgg mbir mi rek waaye santul na ci dara ñaari façon xam-xam yi mu am kon jàppal tënk bi bu baax ilmu mu kaas mu am ak ilmu mu amala wal maqsud lañ na mo min hadal kitab ci bi téere ilmu mu amala mooy xam-xamu jëflante faqat dong duuna ilmu mu kaas waaye nag jàngalul xam-xamu mu kaas téré bi xam-xamu jëflante la ci andi waaye andi wuñ ci andi wuñ ci xam-xamu mukaasifa xam-xamu mukaasifa alati mooy bi nga xam ne laa ruxsata déet ak yombal fii idaaya ci dénk ko al kutuba téere yi kooku yàlla mayewul ñu dugal ko ci téere yi wa in kaana dina nekk ne xii moom xaayatu maqsadi taalibina mooy dootalu waaye jublu waaye ñey sàkku xam-xam wa matmai nasari siddiqina mooy xemamteefu bëtu ña dëggal siddiqina yi moom la ñuy sàkku maanaam ñi xam ñëpp ilmul mukaasifa fa lañ bëgg a yegg علم المعاملة يون لا بور يغال لا سي علم المكاسبة واي علم المكاسبة نك دولي ني بيند سي المعاملة خم كم جفلانت طريق يون لا اليه جيم كم وني نعم. ولكن واي لا مي تكلم وخوت الانبياء يونتي صلوات الله خوليا عليهم يال نيوم مال خلق عندك مندي في الا في علم الطريق لو مي خم كم بيون خم كم بي تك سي يون بي سي لا بروم خم كم سي لا يونتي دون واخ موي علم المعاملة لول لا يونتي جانغالي ilmu mukaashafa nag dégg nga euh, dañ koy junj wala ishaad ak génn ilay jëm si moom waaw maanaam xam-xam bi nga xam ne yoon la daf lay jubal si ci ilmu mukaashafa ci loolu la doon yonent yi di wax ndax xam nañ ne boo ko dëggalee rek yàlla may la ilmu mukaashafa moo tax benn waaye ñëw na si imam Malik di ko laaj baatin imam Malik mer ne ko baatin boo jëfandikoo si sharia rek yàlla may la baatin loolu rek la waaye du lu ñu dem di ko wuññi di ko wax. waaw yonent yi xamoon nañ ne boo dëggoo rek yàlla xamal la baatin mm-hmm. moo tax baatin gu wér ci borom séria gu wér guy yàlla ci la ci la ci lay wéree mm-hmm. loolu war a yonent yi la ci yoon wi rek boo jaaree seen yoon rek xegg ci ilmu mukaashifa waa ma ilmu xam-xam ak wuññi faram yatakallam moo waxuñ fii ci moom illaa biram ci lu mooy ci ak joxañ ala sabir tam ci li ci yoon exemple rek pour waye na la lu am la wala ijmaal ak mëmbëstal comme ne yonent wax ne fala chey baado dara amul gannaaw yàlla mm-hmm. اللهم انت اول فليس قبلك شيء يا لا ينجك درن جكل وانت اخر فليس بعدك شيء يا مج درن مج لا وانت ظاهر فليس فوقك شيء يا فين درن فرو لك وانت باطن فليس دونك شيء يا نب درن ген خم لو هيرنتي هيرنتي بو حناكو لو شان مكاشفر وارف كول ممبستر تقلو كو فسرو ولي ولي مال ممبستر علم من غير قم منهم bu jugee ci yonent yi bi xusuuri afaami xalqi ci gàtt ak dégg-dégg an ani ixtimaali ci gàddu xam-xam boobu mbindeef yi mun mënuñ comprendre loolu moo tax yonent yi waxuñ ci dañ koy junj rek pour borom xel xam ne lii lu am la mu def ci nag wala ulama borom xam-xam yi nag wala satu anbiya ñoo doon kon fa maa lahum ñeel leen ñeelu leen sabilun benn yoon ilal uduli jëm ci jéngaan nax ji taasi ci yoonu roy wala iqtidaa ak roy kon borom xam-xam yonent yi a roy ñoom it di junj di joxañ rek bañ di leeral xam-xamu mu kaasifu borom xam-xam waru koo leeral ndax yonentu la war a roy te yonent yi leeraluñ ko dañ koo junj rek kon ñaari xam am ilmul muamala mooy xam-xamu jëflante mooy li nga xam ne boo xamee mbir mi da ko war a jëfee loolu mooy li lay xeggale ci ilmul mukaasif ilmul mukaasif mooy li lay wuññil dëgg-dëgg la ngay xam yonent yi nag ci ilmul muamala lañ doon wax نانكو اي ولا ليغي نا لو بوغ واخ سي لو سوما ان علم المعامله نك خم خمو جفلانتي ين قسم دنا سيدلوكو الى علم ظاهر سي خم خم بو فين ان المسلم على المقام باعمال جواري سي تشيري سي جيفي تشيري ولا علم الباطن نك سي خم خم بو نبو ان المسلم على المقام باعمال القلوب سي جيفي قلب خم خم معامله دا فام لو خم نا تشيري كوي جيف ام لو خم نا خولا كوي جيف قلبي ورنا ام يرماندي سيلال جيف غير يال يويب yooyu jëfi xol la am loo xam ni nag jëfi cër la mooy julleeg yu demee noonu wal jaari lay dawala jawaar yi si cër yi imma benn aadatan muy aada ou imma muy jaamu yàlla lay daw benn muy aada comme sëy yeeg yooyu wala jëflante aada wala muy jaamu yàlla comme julleeg yooyu wala waaridu lay rot alal xulubi ci xol yi yi nga xam ne xiyé moom bi xukmil ixtijaab bi mu ngi ci attib lu nëbb ani xawaas si cër yu feeñe min aalami malakooti te loolu ci aalamu malakut la bokk malakut mooy nguur gu nëbb gi imma benn mahmudu muy luñ sant wa imma benn mazmumu muy luñ ngàññ gis mu yéemee de kon ilmu muhamala ñaari xaaj la jëflante goo xam ne cër yi ñoo koy def loolu mooy xam bu feeñ ak jëflante goo xam ne xol bi moo koy def maanaam jikko yoo xam ne xol bi moo ko war a def mooy li nëbb la cër yi feeñ di def benn muy aada wala muy jaamu yàlla waaye la xol yi di def moom benn muy jikko buñ ŋàññi wala jikko buñ jikko buñ musale loolu war a mu xaaj téere bi ci ñeenti xaaj yooyu ngir labal elmu muamala lépp moo tax mu ne la nekk ci xol yi imaam benn mahmudu luñ gërëm la imaam benn mazmum luñ ŋàññi la waajibu li war fa bil waajibi ci li war إن قسم ولا سيد لكو هذا العلم بلا قاج بلا قمقم ويقمقم معامل إلى شطر يعني سنعر قاج ظاهر بفن وباطن أقبنب وشطر ظاهر قاج بفن المتعلق بأجل بالجواري الشري إن قسم سيد لون إلى عادة شعادة وعبادة أجام يلا وشطر الباطن قاج بنب المتعلق بأجل بأحوال القلب شحال قل وأخلاق نفس الجكر بكن إن قسم سيد لون إلى مظلوم إلى مظلوم شرين ناني جكر ناني شقل ومحمود أجل جرم fa kaana mu nekk al majmuu lañ dajale arbaat aqsaami ñeenti xaaj wala yajuz du jàdd nasrun setantal fi ilmil muamalati ci xam-xamu muamala anaaji aqsaami ci yële xaaj loo xalaat xalaat du génn ñi ki yële xaaj anaaji aqsaami du génn xaaj kon mën ngaa jàpp ne xam-xam ñaari xaaj la xam-xam boo xam ne yàlla la ko wuññul nga xam jëmmi mbir mi ak xam-xam boo xam ne yàlla la sàkk nga xam mbir mi ba pare dem di ko jëfe moom jàngale wut xam-xamu mukaashafa bi nga xam ne laa wuññil mbir mi xam-xamu mu amala jëflante lay jàngale xam-xamu mu amala nag benn muy jëfi cër yu feeñ wala muy jëfi xol cër yu nëbb bu dee jëfi cër yu feeñ cër yu feeñ danañ def loo xam ne aada la danañ def loo xam ne jaamu yàlla la bu dee xol bi xol bi danañ am pas-pas boo xam ne nii luñ gërëm la dana am pas-pas boo xam ne luñ ngàññi la lañ gërëm dafay musale lañ ngàññi dafay alagi loola waral mu xaaj téeréem bi ci aada ak ci jaamu yàlla ak ci yee alage ak ci yee musale ngir labalaale xaaji xam-xamu muamala yëpp ci téere bi kon lépp lu aju ci wàllu xam-xamu muamala jàngal na téere bi loolu mooy lay cosaan ci li ko poussé mu xaaj téere bi ci ñeenti xaaj yi kon tënkal na la façon xam-xam yi yaa ngi seetlu bu baax mm-hmm. yëpp dana la ko faram-fàccee benn par benn nag ba nga xam lu lay jëriñ ku bëgg alaxira boo jàngee téere bi tegu ci am am aljana albaayi susaan yi la ma poussé te mooy ñaareel bi indi man lii nag moom pédagogie la xam jamono la raayatu gis naa arax bata xemam teefi min talabati almi si sàkkati xam-xam yi saari xatan mu aji dëggu fil fiqi ci fiq alladi nga xam ne saluha yéwén na enda man laa yaxaafu laa ci ka ragalul yàlla subhanahu tudd ma sallam wa taala kawe al mutadariwu ka làmboo bii ci moom ilal mu baaxaati mu mën a puugarewoo ak nit ñi wala ci saa mu mën a feeñal bi jaay ci darajaam mu mën dirati ak wàccuwaayam fil munaafasaati ci jongante yi ak ci débat yi woo te fiq mu mun nañ koo xaaj ala arbaati arbaayin ci ñeenti xaaj wal mu tasi te ku bi zil mahbub ci yére kañ sopp mahbub nu kuñ sopp la mais <laughs> damaa gis nit ñu bëri dañoo yittewoo fiq te gis ne boo amee xam-xamu fiqu ci diine bu baax a baax da nga mën a progré wu mën a génne sa daraja mën a wàccee sa wàccuwaay ci ci ci débat yooyu te loolu amul ben njëriñ mu ne mu ne loola waral te fiq ñent xaj la ma ma xaj sama téré bi ñent xaj ngir ñu bëggoon fiq mëna xam xamam bi ndax boo solee yére kañ bëgg rek nekk kuñ bëgg manam dafa bëggoon bo yéré lu bax solal ko lo xamni ni ben bakkar nekku ci te ñoon jamono bëgg nañ ko li nak ku dégg jamono ni ngay def léeg-léeg nit dana yore lu bax war sé mëna a jëriñ lu bari mais da ko dëpp lu wut ak bëgg-bëgg nit ñi motax mënu ñu ci jëriñ léeg-léegi da nga gis nit mu yor lu baax dëppale ko bëgg-bëgg nit ñi fekk wallaay loolu muy def noonu amulul ko benn intérêt waaye xam na ne bu ko deful nit ñi duñ jëriñu mu def ko mm-hmm. naxante daal fiq ñeenti xaaj la hmm? benn laaju ci wàllu euh, jaamu yàlla yi ci fiq ak laaju ci wàllu aada ci wàllu fiq ak laaju ci wàllu sëy wala laaju ci wàllu tooñaange yeeg xuloo yeeg yooyu ñeenti xaaj yi dañ xaaj fiq léegi moom mu xaaj téeram bi ñeenti xaaj ngir ñu bëggoon bële ñëw ci bii maanaam naxante daal falam ubit soriwuma soriwut falam ubit soriwuma an yakuna mu nekk taswiral kitaab bi melal téere bi bi sootil fiq ci melo fiq talatufan ngir ñeewante fi sidraaji xuloo bi ci indi xol yi maanaam damay naxante gaa yi ba xol yi mën a jublu sama téere bi ndax buñ ko jubloo jëriñu maanaam boo yoree lu baax dëgg la lu baax la mais dëppale ko ak jamono xoolal la nit ñi bëgg nga solal ko yére boobu bu fekkee loolu benn bàkkaar nekkul ci ngir ñu mën koo wut si ngir ñu mën koo wut si ndax buñ ko wut si wut caaxaan la ñuy wut si te buñ wutee caaxaan alkaan rek la leen la leen te yow sa mbir mi dëgg la baax na mais am na noo koy noo koy présenté nit ñi duñ ko xemam te buñ ko xemamut dañu dem xemam lu ko gën a suufi wali hada li moo tax talata fa ñeewante na baax dama raama ñeen ñu sàkku istimaal dox xulubi ruasa yi jéngaloo xol njiit yi ila tibbi jëm ci docteur fa wadaw ñu teg ko ala hayati taqwimi nujumi ci ni ñuy xayma biddi wi mawduan teg ko fi jadaawilu ci ay jadwal wa ruqum ak ci ay rëdd wa ruqumi ak ay mandarga wa samaaw ñu tuddee ko taqwimu sihati xam nga taqwim ci wàllu calcul la maanaam xam-xamu nujum buur yi dañ ko bëggoon ak njiit yi ndax ñoom dañoo bëggoon gisaane ñii nag di jàngale ci wàllu docteur bëgg buuri xamem ko ñu def ko ay jër wala ay rëdd ay quatre koñ comme ay xaatim daal def ci ay mandarga tuddee ko tur ñuy tuddee ilmu nujum ngir buur yi mën a bëgg wàllu docteur ndax dafa niroog la ñuy jàng yaa gis borom xam-xam yi ñaan pour jox la li li ñu yore ndeysaan yonent bi nii la daan def dafa daan naxante nit pour ñu dugg aljana nit ñi di bañ waaye mu daan ñeewanteeg ñoom di naxanteeg ñoom pour ñu am ko lu tax ñu def loolu li yekkoon ngir mu nekk unsum seen wéttali bi zaalika jinsi ci boobu rek kat jaati ba ndaay ji xëcc loom ñene el mu taati ñu mën a lire téere docteur yi buñ ko defee buñ buñ jëlee wàllu docteur def ko forme boo xam ne dafa niroog la buur yi gëm gëm muy xam-xamu biddoog yooyu day tax buur yi mën a lire loolu jaruñu ci mu ne wattalatu fu naxante nag fi ci zaabil qulubi ci xëcc xol yi ilal ilmi jëm ci xam-xam allazi ba nga xam ne yu fiiru dana jëriñ xayaatal abadi dunduk foofu aham moo gën a am solo mi ne talatu fi ci naxante fi ci zabira ci xëcc ko ila tibbi jëm ci docteur arasi bi nga xam ne laa yu fiir du jëriñ ila sihata jasad lu may wér yaram naxante ba ni ñu ñëw jël xam-xam boo xam ne buñ ko jëlee seen xol bi dana wér ñu dundu ci dund ak dappet mooy dund ak alaxira moo gën ngay naxante ba indi ni ñi ci docteur gi nga xam ni wér gu yaram rek lay indi te wér gu yaram moom euh, docteur moom yàgg-yàgg dana dana yàqu ndax nit ki bu dee soxlaatu docteur فسمرة هذا العلم من يتقمقم بما يجعل تب القلوب من دكتور قلي والأرواح من دكتور الروحي المتصل بأجي جوكل بيتشموم إلى حياة تدون باقمة تدوم دنسخ أبدا الأباري بفو فأين منه أنا نملك التب دكتور الذي ما يقوم يعالج دنين فجأة بيتشموم الأجسار الجمعي قم قم بي فتقل موغل قم قم بي فتجم ويتموم دكتور معرضة من جارة بالضرورة تشيرون من ياكل الفساد نير يقل fi aqrabil amadi ci diir yi gën a jege wala boog wala boog jëmm yi jëmm yi daal balaa yàgg danañ yàqu moom te buñ yàqu duñ soxlaati <coughs> wàllum docteur te xol moom bu baaxee dund ak dappale ci borom jëmale looloo waral mu ne ma def sama téere bi ci forme fiq pour nit ñi mën koo xeme mën koo bëgg mën koo jàng jëlaale ci loo xam ne dana defar seen àdduna ak seen alaxira yow yow lii na la jàngal yow mi nga xam ne nii yor nga lu eh, lu baax bëgg cee jëriñ doomu aadama yi na ko solal yére boo xam ne dana tax doomu aadama yi xemam ko dana tax ñi bëgg ko dana tax ñu wut ci ko loolu naxante pour mën a jëriñ doomu aadama yi fa nasalullah ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala sala tawfiq sens li rasaadi ak ak ak jub ak jubal inoo nag moom karimun aji tedd la jawaadun ku tabe la ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu sens may njub yàlla ku tedd ku ku tabe la defee loolu moom mooy مقدمة من دوغي كتاب علم التير بي جانغل الأجيش والو قم قم إن أريد الإسلام وستعطوا ما إلا بالله علي توكلت وليونيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته